بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمة وعلى آله وصحابته ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين القائل أطلب العلم ولو بالسين القائل طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وقدرتني jullit قري wa jami ansar din commune par commune commune berdek re dekk par dekk ñu di o di ubi fatali ubbi école madrasatul fathi fi ci tay bi di école arab bo ni ñepp xam nañ ko di école bu mucc ay ci jang ak jangale di jangale arab anglais français école bobu genné ay kangam yu bari bari beri bari bari ñu ngi ci oo ñëpp di fàttaliku ñëpp ne mbind mi tàmbali na bés ni ki tey jii ci alxames ji tolloog le 19 ba la 7 octobre nag njàng mi daal di tàmbali mbind mi nag ñu doxee woon daaw noonu rek la tëddee kuy bindu droit de bi 5000 francs la weer par weer nga fay 3000 francs juróom-benni téeméer ñu ngi ci oo ñëpp ñu ñëw bindu si comme ni ñu bàyyi jàngale fàkkeeku pii bi mu mbokk itim ci adas yi ansar diin école tabax juma jàng jàngale kon loolu lépp képp ku ci yëngatu rek yaa ngi yëngatu ci li nga xam ne moom la bàyyi euh, sampale et daari bi ñi nga xam ne am nañ entrant sixième nga xam ne am nañ certificat ñooñu ngi war a jàng ci classe édadi bi ñooñu itim ñu leen di oo ñooñu seen bindu mi cinq mille francs la comme ni ñu ko waxee oon waaye ñoom weer cinq mille francs la ñu ngi oon ak bépp taalibe góor jigéen mag ndaw ñëpp bindu si bala le 7 octobre njàng mi ci tàmbali ñi ñaan yalla yalla xag ñu ci jàmm may ñu sanna diraasiya boo xam ne sanna bu am na jaaxle doon ci barke moom la si ibrahima ci barke baay koo xam ne kii na uju bii oote bi ubbiti école bi rek nga nang ko jàllale na nga oote xante ñëpp ñu ñu uy si Mawlana Ibrahima ci école bi fii ci Taïba Niassène ñu jàng njàng moo xam ne ñëpp xam nañ ne njàng moo aw yoon la wa ma zalika ala llahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullah